waaye nag arbitre bi sifflé na ñaari ponkal yaa ngay léewtoo duñ ne ñaari diggante Wëz Jàmbaar ak ki nga xam mooy Boy Niang 2 Boy Niang 2 bu bu ikiri wàllo bi gaaw bar combat da gaaw Boy Niang 2 mu nekk sunu càmmooñ Wëz Jàmbaar nekk sunu ndeyjoor ku nekk samp sa pied sa ca pied pied gauche ñoom ñaar ñëpp pied gauche la ñu jiital attention lan mooy xew ñu ngi déplacé ñoom ñaar dafa mépp Weuz Diambar attention Boy Niang door na gauche Weuz Diambar mi ngi koy déglu lan mooy xew kan mooy songu wala kan mooy nooju wala kan mooy xatar bi wala kan mooy teq tequ mbiir waaye mi ngi noonu Weuz mi ngi jat Weuz bëreel mi ngi jat Weuz day bëre bëre lay bëgg ndax bu ñëwee runkum daje combat bi jeex sànni na benn gauche. Boy Fayuna. fayu na. Boy Niang fayu na Weuss remise na ko. remise bi baax na. mais Weuss mi ngi liir combat bi. waaw moo ngi koy liir. mi ngi door gauche mi ngi door gauche. ma ne ma ci mon juweel ak moom. mu ngi door gauche. ma ci mu juweel ak moom Fallou. Boy Niang maintenant Weuss arrière. Boy Niang limi Boy Niang ak Weuss. waa mi ngi noonu boo Niang Weuss jàmbaar ba léegi amagul dara amagul Boy Niang Weuss waaw Boy Niang moo ngemboo ngemb lu weex li Weuss moo ngemboo ngemb Lagos bi Boy Niang tàllal na loxo bi rek waaw mais Weuss day yàggam yàggam Weuss day ñëw ci tànkam Weuss dafa bëgg door jël dafa bëgg door jël mais ki ma ne moom mooy Boy Niang taxaw moo baax waaw mais boo xoolee moo ko jiitu si làmba waaw moo ko jiitu si làmb. moo lay wan ne fooy toogee. et wa zone mais boo ñaa tànk la bëgg këf fa mel booy ñaa moom tamit tànk jël. mais day na moytu ne kuu. am na kuu yoo xam ne bu la daalee bu la laalee da ngay daanu. dëgg la. ñoom ñaar ñëpp ku ne xam na ne ay mbër lañu. gum daje lamb jeex. bu ñëwee nu gum daje rek mu jeex. waaw. woo jàmbaar loolu du yoon dóor bu sore boobu baaxul. déedéet. mbër bu dóor bu sore ak coup perdu. eh jël ko. si li wax. booy jël na ko. booy ñaa jël na ko jàpp na ah. ci ngemb li. waaw. woos jàpp na moom dëgës. Oh. woos woos egg na da lay daan da lay daan. Oh. bu la jàppee lamb ji jeex da daan. da lay daan moo la mën. daan na doole. li la bëggoon moo la ëpp doole li la bëggoon ndeysaan la jàppee lamb jeex mais wës mi na ko lamb bàyyi xel xoolal mbooloo mu mi indi xoolal liy topp ci ginnaam xoolal mbooloo mi xale bi bari na mbooloo tubaarkàlla lii la ñuy soxla ci mbëri